waa xam nga loolu ñu ngi sant yàlla mun nañu wax ne presque yegg si nañ. Mhm. parce que au moins y a les intrants. imagine lii bu amul woon day metti te des na ba léegi. waaw mais bon après li mag yi ñoo koy lire wala. waaw loolu dafa am nag dafa laaj une volonté politique clairement affichée. ñu dem nag dans une réforme en profondeur. mais li nga wax moom lu nekk la te balaa nga koy xam toujours man comme ba dama nekk historien dama am cette déformation damay def toujours benn investigation historique wan affaire fu mu jógee. Mhm. gis nga l'école sénégalaise. et appendice de l'école coloniale ñun xamuñoon école daar la ñu amoon ak nos modes d'initiation nga xam ne xale yi lañu dëggal ci ay lëlëg yooyu mm-hmm. école nag tubaab bi moo ko fi indil mais dans un premier temps même ko indee nag y avait beaucoup de paradoxes lañ la doon jàngal mooy lan nos ancêtres les Gaulois ak tamit am lu ñu bëggoon dugal bi ñu nee ma am indépendance Kader moo njëkk Kader booy moo njëkk wax ni war nañ taxaw dindi li nga xam ne aberration la ñu commencé réformer jéem a dugal tuuti mm-hmm. ku ci mel ni Iba Der da ngay fàtte ni tey buñ ne Vanvo mu ne wëy on met Lamine Gueye buñ ne ñeneen ñi nga xam ne au moins seen comportement à l'époque coloniale xaw na acceptable ñu bàyyi leen fa ñeneen si daf ñu ay parrain ñoo xam ne suñu ay nit lañu. ñu ci mel ni ay Malick Sy de Thiès euh, comment dirais-je l'école de Kaolack la Val Diodio mhm. à l'époque c'était Gaston Berger donc moom en tant qu'historien ministre de l'éducation nationale def na ci lu baree bari alors biñ ñëwee tamit ñi ngi def ay jéego mais dafa des parce que daaw rek da ngay gis ne xale yi dañu génn ne programme bi dafa bari. Mhm. dañ leen di jàngal soxlawuñu ko. donc c'est le moment. ñu par exemple Malick Sy boobu on sait même pas ko kii. en moins nekk département histoire jàngale wuñ ko fenn. il a beaucoup ça c'est un exemple parmi tant d'autres en fait. c'est vrai que programme yi moo demee noonu. Mhm. jàngalewuñu ko mais ñun nag ñoo war a jël suñu responsabilité ne man ci lii laay bind lii laay jàngale. tey en tant que qu'universitaire tey boo ko bindee mais da nga am sa boo xam ne tu vas tu vas tu vas enseigner ton livre quelqu'un comme Cheikh Anta Mbacké mais bay na waaram ñi nga xam ne tey ñi ngi Paris ñi ngi nekk dans des instituts mais loolu la ñuy jàngale Sénégal nag dañu war a approfondir loolu te gis nga sunu ay curricula tam dafa am problème curriculum yi dafa am problème mënuñu rek la ñu doon def depuis 1999 continuer di ko def parce que affaire yi c'est dynamique il faudrait qu'on change c'est vrai que les les œuvres au programme chaque année